li ci des moo di aj li ci des moo di aj aj itam aj itam da nga koy mën da nga koy mën am lu la yóbbu am lu la yóbbu am amug wér amug wér goo mën a demee goo a demee nga def ko benn yoon dong jafe woon na lool jafe woon na lool léegi nag yomb na léegi nag yomb na ci kaw ndimbal lii ñu ñii dimbale ci nga xam ne moom la ñu ñii di dimbale ci la yomb googu dikkee ndax naka jekk ndax naka jekk ña daan aji ña daan aji dañ daan jóge fii weeru koor dañ daan jóge fii woori koor bala ñu àgg makka bala ñu àgg makka weer wa dellu weer wa dellu tànk lañ daan demee xam nga loolu wut nag dem ci ñaari fan rek loolu nag wute nag dem si ñaari fan rek del si bu mu tax nag waaw bu mu tax nag def ko bu mu tax ngeen defee ni def ko mooy yoon waaw def def aw yoon bu mu rek bu mu tax ngeen defee ni def ko aw yoon rek di dem ak a dikk di dem ak a dikk tukki rek la kooku tukki rek la wenn yoon bi boo amee rek wenn yoon bi boo amee def nga ndigal la def nga ndigal la ñu la santoon doy na doy na kooka nag it kooka nag it la ca sunu borom dële la ca sunu borom dële moo ne moo ni ku jóg ngir man ku jóg ngir man dikk fii ci arafata gii dikk fii ci arafata gii mboolem loo defoon. boo loo defoon. baal naa la ko baal naa la ko. kon nag loolu doy na sëkk. kon nag loolu doy na sëkk. taatan loolee rek. taatan loolee nag war naa doy. war naa doy. tolloog nag. lu tolloog nag. di ko barbaree fu di ko barbaree saa bu ne nga dem fa nag. mel ni mel ni mel ni moo gu jëkk waayam. mel ni moo gu jëkk waayam. fekk na yëmuñu. fekk na yëmuñu. ndax benn benn yoon la waxoon rek. ndax benn yoon la waxoon. ku nekk nag di waxaat di taaba rek. ku nekk nag di waxaat di taaba. du ko def du ko def.